di yëkkati suñu kàddu ci turu ak ndigal Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñ yi njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Xaadimu Rasuul bàyyi ko itam ci Baye Ahmadou Maxtaar mi nga xam ni moo yilif kër gi e, ñu bàyyi ko ci Serigne Moustapha ñëw ci bis bi nga xam ni kenn ci ak njabootam ci biir njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci kër sëñ Abdou Aziz Bara ci biir njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Abdou Aziz ci biir njabootu sëriñ Abdou Aziz mi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Abdou Aziz waaye sëñ Mame Bara mi nga xam ne suñu doom la mu dajale ñu fi e, ñuy nuyoo tey tàmbalee nuyoo bi ci sëriñ koso mi nga xam ni moo fi teewal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ñi mu àndal ñépp ñuy ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te may ko wér bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam nuyu ñu fi fekk ñépp rawatina parents yi ak ndongo yi nga xam ni ñoo ñu fi tax a teew tey ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa seen xam-xam dolleeku barkeel yow mi nga xam ni yaay ministre de l'éducation nationale nga ñëw fi tey ci lu am solo mooy inauguré daara moderne yi nga xam ni mooy daara moderne soxna Asta Walo nga xam ni dañuy jëkk sant ñaanal la ndax président Macky Sall bi la tànnee def la ministre de l'éducation nationale gis nañu sa farlu ak sa góorgóorlu taxawaay bu mat sëkk itte joojoox wàllu éducation ci Sénégal kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la yóbbante ay cant ci président Macky Sall ndax daara moderne ji bi yàlla dogalee mu jot ci réew mi 2012 daal di xalaat conseil des de décentralisé bi mu koy def si Diourbel Cheikh Sidi Makhtar daf ma woo boole maag le maire ab sëñ Abdou Lahad Ka ñu bind jamono boobu lépp li nga xam ni jàpp nañ ni Touba dina ko ajawoo ci infrastructure ci wàllu ndox ci wàllu santé ci wàllu électrification ci wàllu éducation ci wàllu yëpp bokk na ci li ñu yóbbaale woon nag ñeenti daara moderne yoo xam ni dafay wër dëkk bi ba ñu ñëwee exposé ko foofu bi premier ministre ñëwee ñu validé ko président Macky sàll taxaw ci ba tey nga ñëw di ko inauguré kon ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu ñi nga àndal ñëpp muy gouverneur préfet sous-préfet ak ñi nga xam ne ay directeurs généraux la ñu ak ñi la représenté ci wàllu éducation nekk ci département de région bi ñu ngi sant bu baax di lu gërëm moo tax seex si Cheikh Mamadou Mountakha ayyadahu Allah wa nasarahu moo tax mu bëgg a dundalaat xam-xam ite jëm jëpp mu def ko ci kon liggéey bi nga xam ni président Macky Sall liggéey na ko ci wàllu éducation lu ñor sëñ bi la lu ko neex la lu mu la ndax gis ngeen barki démb rek li mu université boo xam ne 36 milliards la ndax xam na ni yoonu yoonu xam-xam la ndax mooy sunna al imaanu al islaamu al ihsaanu te yooyu yëpp dafa tënku ci wàllu xam-xam kon xam-xam mooy li jiit li sëñ Tuubaa jiitaloon ci ab liggéeyam mooy lim jiitaloon ci tarbiya mooy lim jiitaloon ci tarxiya mooy li ñu tasfiya kon monsieur le ministre ñu ngi sant bu baax di gërëm di yóbbante ay cant ci président Macky Sall liggéey bi rafetlu nañ ko bu baax sant nañ ci gërëm nañ ci di sant itam ci turu sëñ Moustapha suñu doom ji nga xam ni mooy sëñ Maam Baara ndax lii ci nekkuk Cheikh Sidi Maxtaar lañ ñëwoon ci sëñ bi muy nekk xalif Cheikh Mouhamadou Lamine Baara laaj ko ndigal mu jox ko ndigal ànd ak moom ci loolu mësul dugg ci dara loo xam ni dafa ñëw ba ci sëriñ bi mu jox ko ci ndigal lépp lu ko ci sëñ bi digal mu def ko ja lu mu ko tere mu bàyyi ko ba danga ni si daaw man maa ngi fàttali bi mu ñëwee ci sëriñ bi am lu mu ko wax sëñ bi digal ko tere ko mu daal di jégalu sëñ bi maa ngi jégalu te lépp sa alal la bi mu demee sëñ bi daf ko wax ni ko Cheikh Sidi Maxtaar dafa am ñaar yoo xam ne dañoo jege te bokkuñu tàggoo ak yëgle tàggoo ak yëgle maam Baara bi ne day tàggoo yëglewul loolu ab seeral la boo xam ne sama am ju baax ji di sëñ Tuubaa moo la ko seeral yóbbaale na yóbbaale na sa ngërëm kon ñu ngi lay sant di la gërëm te xam ni ñaari doom rek moo am ci àddina doom ji nga xam ne day tiitaroo ay waajuram ak doom ji nga xam ni waajuram da koy tiitaroo yow yaa ngi bokk ci doom yi nga xam ni seen ñii say waajur dañ leen di tiitaroo waaye loolu rek noonu ngeen mën a mel ndax ku xam seen waajur sëñ Moustapha Abdou ni mu meloon jaar ci siraatul mustaqim kenn mosu koo yab ndax ci li waroon a nekk rek ci la waroon a nekk liggéey jaamu yàlla bay am jom am lu muy jomm ci loolu la nekkoon yéen yi nga xam ne leen meñ ñëpp itam loolu lañ gis ci yéen te seen maam ju baax ji seex Mouhamadou Lamine Bara ku ko xam-xam ni nitu xam-xam la gis ngeen li bind ci ay téere Serigne Touba itam li mu wax li mooy suñu alal mooy suñu dono njub xam-xam la yonent yàlla Zakariya ya ñaanal suñu borom rabbi habli waliyan yarif suñuy wa yarif suñu naa ali yaquba dono gi mu don ñaan mu donn ko mooy ak wax te mooy ak njub kon ku bokk ci sëriñ bi li nga war def sa ite moo di lii mooy xam-xam liggéey jaamul yàlla jàpp sa te xam ni sëñ Tuubaa moom liggéeyal nañ lépp li wax ni kanzil kitaabu wal xadiisu wal adabu laa jamoo fiddatin wala jamoo sahab loolu ci ngeen nekk kon ñu leen ci encouragé di leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal di sëñ koso ñu ñaanal sëñ bi te di nga xam ne lépp alalam la ndax wax na barki démb nee na sëñ Tuubaa ku ne da ci aw ab cër waaye taalibe yëpp ku ne cër ba nga am ci moom doy nañu ci ba jox nañu ko lépp kon ñu ngi sant bu baax jërëjëf. ñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp ci kilifa yi diine yi ci njiitul sëriñ Moustapha Mbakke mu Cheikh Mouhamadul Amin ak rakkam yu tedd yi fi nekk sëñ Koso. mu seex Mouhamadul Muntaqa ak rakkam yépp ak jabootuk seex Mouhamadul Amin Baara gi fi teew gépp di nuyu it kilifa yi àdduna yi fi teew di jiital ci nuyu bi ministre bi yor njàng mi ak délégation bi mu àndal bépp di nuyu it maire bu dëkk bi ak ñi ko fi teewal ak ki jiite village bi euh, chef de village bi Serigne Thierno Ndiaye ak mbooleem autorité yépp di wax nag ci turu Serigne Cheikh Waalo moom mi nga xame ne dañu jagleel turu daara ji soxna astawaala te seet ci ay turandoom ak njabootu soxna astawaalo bi ki ci mag te nekkoon ca yoon wa mu nekkoon tax ñu jagleel ko soxna waalo mu sëriñ saaliwu soxna si li yitteel ko lool mu bëgg ci lool ci turu neex yi ñu ko jagleel tax mu yabal njabootam gépp Euh, fekk na am na ci lu mu nekk waaye waxtu wu ne mi ngi jokkoog ñun di ci soññee ci lool it ñu ànd ak sunu kilifa gu tedd gi sëriñ Seex mu ànd ak délégation bu mag sëriñ Xalil mu sëriñ Moustapha Habsa ak soxna moom yi mu sëriñ Saaliwu mi ngi nii sëriñ Mamor Kebe mi ngi nii sëriñ Jiili mi ngi nii sëriñ Murtala ak sëriñ Saalihu Mbàkke ak ñeneen ñu bari ci mag yi waa kër sëriñ sëriñ Moodu soxna moom yi mu ak ñeneen ñu bari sax ci waa kër sëriñ Saaliwu ñu teew ci Euh, euh, ngir yëg ak taraanga ju réy ji ñu jagleel sunu maam ju tedd jooju di soxna sawaalo te mooy ki ko fi jëmmal kon dana rafet ñu fàttaliku ki ñu ko tuddee muy soxna astawaalo mu doonoon koo xamee ne euh, mbooleem valeur yi yi sëriñ Tuubaa di jëmmal di ci woote ci mbaax ci jikko ju rafet ci fonku xam-xam ca foofa la tàmbale woon ndax mooy jigéen gi njëkk taxawal daara yàlla dogal na soxna jaara la ñépp xam waaye daara ja soxna jaara génnee ka tabax soxna jaara ka tax mu mel nam mel ci xam-xam ka tax mu mel nam war a mel ci ay jikko yu rafet ba mën a meññi sëriñ Tuubaa kooku mooy soxna jaara mooy soxna asawaal di doomi soxna Ahmadu soxna Buso euh, doonoon boroom xam-xam bu mag a mag euh, di yarkat bu mag a mag sëriñ Moussa Ka wax na ne da daan sol jàllaabi yor daara ju mag di jàngal góor ñi bari na lu bari ci borom yi xam-xam yi ñuy tudd ci réew mi ci daaram jooju lañu jànge doy na ci sëkk rekk élève bu mu génnee muy doomam ju tedd joojee soxna jaara buso kon Euh, héritage boobu mu amoon di ci yar moom la Sëriñ Tuubaa ñëw rek yeesalaat dekkal ko taal daara yi taal daa euh, taalu jàngo yi ngir dekkal lislaam ngir dundal lislaam yeesal ko dundal sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, ba tey fu ne ci réew mi fu ne ci bitim réew euh, daara Sëriñ Tuba àgg na fa te cosaan la woon mooy daara yi soxna astawaalo joojee loolu it moo wëy ba ci njabootuk Sëriñ Tuba gépp kon du jaas bu ab sëtëm feeñaatee di sëñ Maam ñëw ba àdduna laaj ñu indiwaat mo moderniser daara yi mu ñëw am yitte am pas-pas jaay adduna jaay lépp lu neex ba nga liggéeyal maamam ci alquran ba tax gannaaw bu fi waajuram jógee mu am ndigal sëriñ saaliwu ci taxawal daara yi sëriñ saaliwu jox ko turu xidmatul xadim muy woy ba tey jii maamam ju tedd ja sëriñ euh, Sidil Muxtaar taxawu ko ci ba tey jii nguur gi def fi liggéey bu am solo bii ñu koy tijji kon dañuy xam ne rek maam Baara lii mu def loolu rek la war a def mooy wéyale liggéeyub ay maamam wéyale liggéeyub ay waajuram ñi nga xamee ne سرين توبا دا واخون نلين جمالكم علم وسعي وادب فلازموها تكفى عن يكفى عنكم الودب يين سينو تار دو اي شاتو دو اي اوتو دو ادونا دو بريستيج واي سين تار موي خام خام سين تار موي جيف جو رافيت سين تار موي جيكو جو باخ كون جاب ناني مامبارا كومبراندر نا بو باخا باخ ميساجو سين توبا تي موم لاي ويهلي باتاخ دارا جي مو ام Euh, ci loolu sëriñ Cheikh Waalo waxoon ñu jot li kàdduy cant yu jóge ci soxna si soxna Waalo mi ñu jagaleel bis bi xam ne da koo fekk ci xat-xat waaye bu mënoon moom mooy ñëwal teewal boppam waaye euh, bi mu mënut tamit njabootam gépp soññ na leen wax nañ ñëw ànd nag maam baara bis bi lépp lu ci war ñu taxawu ko ci kon euh, dañuy ñaanal sëñ Mame Bara yàlla dëgëral la te taxawu la ba liggéey bii nga sembu ci liggéeyal sa maam yàlla defal la ci ndam ba yeneen daara yu baree bari topp ci loolu kàddu yooyu la ñu waxoon dañ ko jàllale ci turu suñu kilifa sëriñ Cheikh Waalo di moom it di kilifa goo xamee ne it euh, jàmbaar la ndax li mu taxawal ci daara li mu taxawal ci école ci dëkk bi ku ne xam na ko muy sunu modèle bu ñuy royu di ko ndamoo bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko bu baax a baax naal yi mu sëmbu tamit ak daara yi muy taxawal ak école yi muy def di ci jàpp ci biir vision maamam ju tedd ja Seexul Xadim ci biir vision Sëriñ Saalihu ak Seex Moustapha ci biir vision tamit sëñ Muntaxa mii fi ñëw woote ci njàng kon yàlla nañ ci yàlla defal ndam defal ko yow ministre bi defal ko jullit yëpp. xam naa suñu kàddu du bari ndax. ci tenk rek la ñu wax programme daara ji ni mu tëdde ak kañ la sosu ak ci lan la sosoo ci ndigalal sëriñ bi itam lañu koy defee daara ji di daaray xidmatul xadim sëriñ Mam Baara mi ngi ko sos ci ndigalal sëriñ Saalihu Mbàkke radiallahu anhu ci le septembre 2002 ci la ko sañtoon muy barab bi di daaru tanzil Euh, boobu ba léegi itam mi ngi toll ci fukki at ak juróom-benn bi yàlla dogalee daara ji di dem ab diir booba itam def naa bi mu koy sanc ci mbaarum sàkket la ko sanc woon li mu donga itam tolloon ci juróom-ñaari juróom-ñaari donga ci la li noonu la lim bi tolloon mu tàmbali di fi jàngale alxuraan nekkaloon fi boppam diir bu yàgg mu dem ba nga xam ne yàlla dafa na ko tawfiq ndax ku ne xam na ne liggéeyal Serigne tubaa moom eh, alxuraan ci lañu ko mën a jaare ndax fu ne mën nga fa dàkk bëggug sëriñ tubaa di xel yaar ba mu des alxuraan ndax ma wax ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawrusi bi loolu amee itam mu dem ba gis ne daar ji waris na koo yaatal waras na ko yokk ndax gox bu nekk euh, nit nañ fay jóge di ñëw moo tax mu yaatal ko ci atum 2008 mu am ndigal ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké def baneen daara tobbi jóg ca Kébémer mooy ñaareelu daara ji nga xam ne moo topp ci daara ji di xidmatul xadim ci daaru tanzil mu dem ba ab diir itam ci même ci année boobu mu dem Mbàkke Kajoor Serigne Sidi Muxtaar jox ko fa ndigal mu dem itam yokkaat ko feneen muy Busra Busra ci tuubaa la nekk moom itam defoon na fa beneen daara euh, fi ñuy wax mbaam jigaan itam ca Saalum def na fa beneen daara ak gis nga daara ji nga xam ne moom la mu doon ubbi tey Serigne Sidi Muxtaar ni ko Serigne Cheikh Thioro waxe sànq jox nga ko jox ko ci ndigal yàlla dogal mu àgg tey ba kilifa gi nekk suñu ginnaaw moom la doon ubbi si tey yàlla nañ ci yàlla defal tawfiq léegi nag ci biiru fukki at ak juróom-benn yooyu li fi mokkal alquran nga xam ne jàng nañ alquran ba mokkal mi ngi toll ci deux cent maanaam ñaar téeméeri donga ak ñeent fukk ak juróom-benn nañ fi alquran di ko di ko tari ci biir lim boobu itam. Euh, lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñett ñoom ñoo fi bind kaamil am na ci ñoo xam ne sax bind na ñaari kaamil waaye xam nga léeg lekk am na ñoo xam ne bu seen doom euh, mokkale rek dañ koy jël yóbbu ko waaye ñi nga xam ne xëy na bàyyi nañ seeni doom ci daara ji ba daara ñoom ñoom yooyu ñi nga xam ne dañuy bind kaamil euh, am na nag jeneen daara joo xam ne fii ci daaru Tanzil la nekk moom itam ci bokk ci daara Xidmatul Xadim yi Euh, muy daara joo xam ne li ci sëriñ bi jublu mooy njaboot gi nekk daaru tanzil di fi di fi jànge nga xam ne dañu xëy di jànge ci barab boobee sëriñ buur wut ab jàngalekat teg ko fa du ko fay muy jàngale bu dee programme bi nga xam ne noonu lañuy noonu la daara ji tëdde itam ci tënk rek euh, comme yëf yi dafa xaw a euh, bu yàlla dogalee nit ki indi ab donga dañ koy say ci saytu ya gën a wér suñu ko jëlee itam dañ ko jaarale ci programme bu baax nga xam ne ak far ak far ijjéem bu ko yàlla dogalee du du du yàgg ak mokkalam itam bu ko yàlla dogalee ci moom itam du yàgg ndax ni ñu tëralee programme daara ji moo am moo am solo lool lool ndax daara la joo xam ne eh, fukki kalaas ak benn ñoo fi nekk kalaas bu ci nekk itam Euh, am na jàngalekat bu fa nekk di jàngale ca man la muy def loolu ak ñu ko fay jàppale même classe yooyu sax dañ ko wutal ay tur euh, turi xasida lañu jël tudde ko classe yooyu ci nekk am na ci boo xam ne ñu ngi ko tudde mafatihul bishri am na ci boo xam ne ñu ngi ko tudde kaana xaqan am na ci boo xam ne taysirul asir la tudd am na ci boo xam ne nuuru daare ni la tudd am na ci boo xam ne faa mafatihul jinaan la tudd jazbul khulub mawahibun nafi'un jalibatul maraaxib yooyu yëpp ay classe la yo xamne ci bir daara ji la nek liñ ci djublu itam moy xala bi fi nek di jang mu meuna def ci ci xolam ak ci xelam lo xamne meme bu fi jige itam lolu day continuer nek ci mom bu faawu bu day waxtu yi jang ñeul njël gi ñu ngi jug 4 h 4 h ci guddi lañu ñu di jangale ba 6 h su ko defé gone gi noppulu ba 8 h ba 8 h ñu dugg di jang ba 12 h demi maanaam midi 30 bu ko defee ñu lu ba 15 heures ñu duggaat ba 18 heures bu 18 heures jotee boo foofu benn waxtu lañ fi am 18 heures ba 19 heures ñu noppalu ko bu ko defee 19 heures ñu dugg ba 21 heures bu ko defee ñu mën a dallu ba 4 heures incha allah waxtu ñi ci jàngale tam noonu la tëdd su ko defee itam xale bu dem ba mokkal alxuraan itam dafa am yoon wu ñu koy jaarale mooy. day dàq comme ni ko daara yi euh, mag ñi daan defe comme ni ko Serigne Touba radiyallahu anhu daan defe nga xam ne xale bi bu mokkalee day beq beqi mooy du ko bind ca doog a xool ci àlluwa bu demee ba àgg itam nga doog a nga doog a bind kaamil ci biir beq boobu itam ci lañ koy dugale ci programme muy jàng jàngum majalis muy jàngum xam-xam ci biir jàng xam-xam boobu ci la ñuy dugal programme arabe ci lañ dugal itam programme français euh, comme niko ko khadim euh, xaadim waxa nga xam bu tambalé bexé rek day tambalé jang euh, xam-xam xam-xam bi dañ ci dugal programme arab nga xam bu même bu xam-xam bi jeexee day am diplôme arab diplôme bac da koy am day am itam diplôme BFM ci ci ci français bu da koy am lolu programme bu bees la ñu dugal ci daara ji yàggagu fi lolu euh lolu ñëpp ci diiru juroom benn at lay doon manam bu xasse ba am juroom benn at rek dana jeexal majalis téré yi ñu fi jàngale dana génn itam diplôme bac ci arab dana génn itam diplôme BFEM ci ci ci français muy loo xam ne itam sëriñ bi ni mu ko waxee rek euh, ñaanu ko sëriñ Tuubaa googu mu ñaan ci nuuru daara yi euh, loolu la ci jublu wajaal bi jaahil muntaqa xayaati riayat alqurani bil ayaati euh, kon noonu la programme jàng bi tëdde te itam mu wax ne gis na ne xale bi bu ma ko dee alquran way juram mën na koo jël yóbbu ko muy jàng français te xëy na su boobaa njàngum diini ba du ci am solo moo tax mu dugal njàngum français ci daara ji ngir man koo téye xale bi ba li def ci moom su ko defee ci moom ba noppi su génnee mën naa jariñu mën naa itam na jariñe ba tey xale bi euh, daanam daara ji des na fi jànge xasida ay ay sas xasida yoo xam ne dañ ko fi jànge am na ci limu xasida yoo xam ne xale bu fi nekk danga koy mokkal di ko jàng di ko durus waaye nag di ko kuréel ndax ci suba itam moom lañ ubbee xale yi di kuréel ay xasida Euh, di ko mokkal di ko durus loolu itam day loo xam ne lu mënta ñàkk la ci defar xolu doomu aadama bi ak di ko yar di ngir jaarale ko ci yoon nga xam ne moom la Serigne Touba radiyallahu anhu doon jaare doon jaarale ña ñu fi jiitoon ca toppoon ko ca yoon woo rek moo fi nekk ba tey ca du fi jóg mukk kon daara ji ci euh, tënk euh, programme boobu lay tëral mooy des na fi jàngale di fi yare comme ni ma ko waxee mu yaru l'islam bu dee ci wàllu seenu nekk waaye ak yu demee noonu def naa loolu ku dugg ci daar ji boo gisee daar ji danga xam ne loolu moom jarul di jaar ndax ku ci euh, xool da gis daar ji ni mel nga gis ne nekk waaye wax dëgg yàlla am na solo ndax ni ma ko waxee sànq bi mu koy doog a sos ci mbaarum gattax la tàmbulee waaye nag fi mu ne ni yàlla dem na tey ba lépp loo xam ne am na ko def na ko fi ba daara ji mucc naa ayib wax dëgg yàlla yàlla na yàlla def tawfiq ba loolu yokk jëm kanam ba faaw rek euh, ci Euh, boo xoolee fi ne boo duggee ci biir daara ji defe naa am na euh, ñetti étages yoo xam ne ci biir daara ji la nekk nga xam ne sëriñ bi moo ko fi def ngir bëgg rek xale bi jóge këram ñëw nekk ci daara ji dana fi nekk nekkuwaay woo xam ne euh, du am benn yitte wala lenn lu ñu bëgg loo xam ne dafa jëm ci wàllu wala benn jumtuwaay boo xam ne dafa jëm ci wàllu adduna boo xam ne xale bi dana ko soxla loolu moo tax fii ne même at bi nga xam ne ci la xale yi nekk lépp nañ koo karo nga xam ne ngir sàmm seenu cet te même xale yi Euh, ay bis bu nekk dañ leen di fóotal ñoom ñëpp te kenn ku nekk soo xëyee da nga sangu euh, te itam danga sol yëre yoo xam ne yëre yu baax la yëre yu am solo la te itam loolu lañoo gis ne nit ki euh, bi nga koy jàngal lislaam muy jàng alquran ci jàngale itam mu xam programme boppam ci léppam ba mën a set mën a toppatoo boppam ndax loolu lu mënta ñàkkale ci ndi ku nekk ci biir daara ji nag am nañ ci benn koo xam ne Euh, infirmier la boo xam ne sëriñ bi ci bopp moo ko tàggatal boppam yóbbu ko mu jàng ba mën a faj mu indi ko ci daara ji euh, nekk fi euh, di faj gone yi mu am dépôt pharmacie boo xam ne mu ngi ci biir daara ji nga xam ne xale yi ci boppam képp ku ji tawat danañ la xool ba saytu sa wér gi yaram su ko defee kooku danaal ko su yàlla dogalee nga wér alhamdulilah su fekkee ne dem na ba tawat ji xaw ko jaaxal itam am na benn médecin bu ñuy wax Njaay foofu lañ yóbbu xale bi suñ demee itam ba gis ne tawat jii euh, sëriñ bi xëy na def na ci lamman euh, ci gisu ci ak tan mu doog ay way juróom wax ko waaye sëriñ bi moom jëmmi xale bi moom du ci xaar kenn ci am pajam ak yu demee noonu ndax yooyu yëpp waajal na ko euh, ci daar ji moom soso ba ba nëga ci loolu lañu tënku ndax kooku moom mi ngi ci daara ji féete fi nekk loolu day mbir moo xam ne moom bi mu koy def liggéeyal sëriñ bi la ci jublu te sëriñ bi itam jàpp naa ne képp kum not afay du la liggéeyloo kon euh, loolu di xam ne itam lu mu bëggoon a xam la ci tënk rek ñu ngi jëb bi ñëpp wa axiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kilifa yu tedd yooyu diine yi fi teew kilifay aada yi di jiital itam ci nuyoo bi kilifa yii fi teewal sëriñ Muhammadul Muntaqa barab bi loolu la laaj yoon wi day dox ci kilifteef barab bu nekk yëngutu bu nekk bu aju ci yoonu murit ka fa nekkal sëñ tuuba moo ko moom moo koy saytu nun fii Touba ak lu aju ci sëñ Touba am njàng dañoo yitteel képp ku ñu ci jàppale ci barab yoo xam ni danga nu moderniseel barab ya ba bu fi njaboot gu demee dafa jàng moo xam njàngum diine la wala njàngum àdduna wala formation professionnelle dana jàppandi ci nun lool liñ bëgg a def ñu def ko ci njaboot bi ku nu defal ak jàppandal ci loolu nag cant bu kawee lañ lay lañ léegi te du am complexe ci wax ak jëmale ay cant ci yow ak ci président bi nga xam ni moo ko defal fii Serigne Touba ci Touba lu am solo la ci noonu lu rëy la ci noonu benn doomu aadama soo ko tabaxee yaa ngi ci yoonu tabax une nation totale tabax benn nit mooy tabax nation bu ma sëkk ku ñëw Touba manees na jëne cee wan preuve yu tangible yoo xam ni du doon waxe kese shay malmuus lay doon mooy loo xam ni boo ko lambee daj ko fii lu nekk ki ko moom yilif ko yilifaale na Cheikh Ahmadou Bamba di benn nit bu ñu tabax ci diine tabax ko ci xam-xam mu boole ci volonté boppam ak engagement am ci yàlla mu jaral ko mu jaralul kenn mu toggoo ci digganteem ak sunu borom loo xam ne moo ko may lii lépp te benn nit bu tabax la ci daaray soxla Asta Walo Mbakke macca naawe la foofa lañ ko tabaxee fa la liggéey ba tàmbale ñu xamal ko liñ ko war a xamal ci alxuraan xamal ko liñ ko war xamal ci njàngum diine mu boole ci nag volonté boppam ak engagement am ci yàlla ba mu am lii mu am kon boo tabaxee benn nit yaa ngi ci yoonu tabax une nation totale kon bu ngeen nu joxee infrastructure boo xam ni dina nu yombalal ñu tarbiya sunu njaboot bi ci ni sëñ tubaa bëggee loolu sant rek lañ lay ciy def jot lu président cant gi nga xamante ni bàyyi ko na ci mambaaram yi daara ji nag Cheikh Sidil Muxtaar ngeen ko mayam moo fi nekkaloon sëñ Tuubaa lu ngeen teg ci loxol ku fi nekkal sëñ tubaa teg ngeen ko ci loxol yoonu murid yépp njaboot yépp ko bokk noonu la yoon wi di doxe Sëñ Sidil Muxtaar doyloo sëtam bii te boo ñëwee fii ba gis daara ji xam ni sëñ Sidil Muxtaar doyloo na ko mat a doyloo ci wàllu enseignement daara ji moo ko taxawal sama wayjur moo tegoon xeer wi sëriñ Abdul Xadim bi mu koy teg si maa moom a ànd ci volontaire ak parents d'élèves ak ay dongaam taalibe sëñ Tuubaa yi taxaw ci jàpp ci ànd moom ci liggéey bi ba mu agsi fii kon lu tege ci loxoom du ko yàq na ngeen ci am confiance bu baax a baax a baax kon ñu ngi lay sant di sant président mi la fi yabal di ko xamal ni ko fii de ci Daaru Tanzil wala fii ci Touba de lii munu defal de te defal ko yoonu murit bépp yoon bi yépp bég nañ ci sant nañ ci bu baax a baax a baax lii suñ borom di digle nag ci jëf ju baax lépp yàlla na tase ak fay gu kawe jotam kon nga may moom ma dellu siwaat ci sama kilifa yii fi teew sant leen bu baax ci seen teewaay sagal ngeen lislaam sagal ngeen sëriñ tubaa sagal ngeen Mamba sagal ngeen ay bokkam ndax liggéey bu mel nii su ko defee ba mu agsi fii ñu wax ni ñaari téeméer nit ak nangam mokkal nañ fi alxuraan téeméer ak nangam bind nañ fi kaamil bokk ca boo demee ca sama saal di nga fa fekk benn kaamil boo xam ni fii lañ ko bindee kon loolu preuve la ci li ñuy wax lu leer naññ la kon euh, ñi ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay xam nañ wax ko ni mu seere ci nit ngeen mën a jël bisub lëm jox ko maam baara waaye seen bopp ngeen ko jox sëñ tubaa ngeen ko jox ndax jataay boo xam ne jataayub alxuraan la jataayub sëñ tubaa la lu fa waaye gën a yàgg saw yu gën a bari te lu baax rek la ñuy wut kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant bokk yi di sant dongo yi di sant parents d'élèves yi di sant mbooleem koo xam ne liggéey bi jàpp nga ci ba mu agsi fii surtout asatisa yi nga xamante ni ñoom ñu gunge xale yi ànd ak sëñ mambaare ci liggéey bi ñuy def ci ndongo yii ci tarbiya bi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa bëgg koo ko defal ak ci njabootam loolu ñuy leen ci sant bu baax te di leen ci gërëm kon bis bi bu ñu ko tuddee suñu kilifa góogee duppee ko ko mambaara def loolu warees naa laal tuuti ci ay jikkoom ak melokaanam ba nit ñi xam ni ki ñu ko tuddee nii la meloon te loolu as as as as comp la ci démarche ak kili ak ñi sëriñ bi meloon digganteem ak bokk yi digganteem ak julliti réew mi yépp digganteem ak waa àdduna bépp yéene ñépp jàmm sagal ñépp teral ñépp yiir ñépp jaboote ñépp loolu lu am solo la ci kilifa Cheikh Sil Muxtaar loolu bokkoon na ci ni mu meloon bu dee bis bi nag bisu alxuraan la alxuraan ku ko wax sa xel dana dem ci sayduna jibril ñu ko doon yut sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ku tudd alxuraan sa xel dem ci amaana taarixul amaana كتب الفران سخال دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بو فا جوغي نون بو فا جوغي دراكتمان سي سنتو والا سن خال دم جاء الامين من اله العالمين الى الامين بامين لا يمين سن سنتو با دافني جبريل نيونا اندي القران جيمي كو تي كول وولوكي موي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد سن بروم دافا ديف تي موم القران waye limi def def ci mom alquran li alquran di di di yomb yomb ci mom yomb tax ndax xawlan sax xilal la sun borom wax yombul ci sallallahu alayhi wasallam bu ayat quran ya mas di wàcc fekk ko mu war gëleem gëleem bi da yës ndax di sa diisaayoo alquran kon poids bi du du du du du du du livre bi ngay téye ni rek diko pesse waye nenen la dafa am maana ci bir euh sayyidna muhammad alayhi salatu wasalam sun borom dako doylo doyloo ci mom alquran waaye def ko nii alxuraan li mën a doyloo ba def ko ci yow li feeg yaa ngi ci kaw suuf yaa koy téye yaa koy yor waaye boo demee bay génn àdduna dama koy jël téyelaat ko sama bopp bu ma demee ba gis ci sama jaan ñu ku ma wóolu ni ma la wóoloo bu boobaa dama koy dénk alxuraan summa awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid su ma demee ba gis ku ma wóolu ci sa sama jaan ñi ni ma la wóoloo dama koy dénk alxuraan jamono di dox ba jëmm ju mag feeñ ci Sénégal di Cheikh Amadou Bamba sunu borom jël doyloo ga mu doyloo woon Sayyiduna Jibril sotti ci Serigne Touba jël doyloo ga mu doyloo woon Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu salaam sotti ci Serigne Touba jël la di doyloo ga di alquran sotti ci Cheikh Amadou Bamba Serigne Touba taq rip na niin bët ak alquran ba lu mu jege wàllu ko yàlla wàllu ko yonent bi wàllu ko alquran dem na bu bu bu sañtee ab dëkk ab dëkk moom Serigne Touba la dëkk bi muy jëkk sanc ci kaw suuf daaru salaam wallaahu yad'u ila daari salaam tuubaa la ca teg alasina amanu wa amilu saalihaati tuubaa lahum wa husnu maab kon maam Baara mi ngi leen di sant yéen itam bu baax a baax ci seen taxawaay ak seen pasteur ak ñi nga xamante ni am ngeen ci moom yaakaar ñu ngi ñaan ci la rajo Sëñ Touba nag yaakaar jooju bu mu tas mukk ñu ngi sant bokk yépp di sant mbooleem njabootu Sëriñ Moustapha Abdoul Aziz bi nga xam ni Euh, njabootu sëñ Abdou Aziz sëñ Moustapha Abdou Aziz bi nga xamante ni ñoom ñëpp teew nañ fi ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp bàyyiwul kenn mi ngi sant bu baax na ki nga xam ne mooy jëwriñu kër gi nakkal fi Cheikh Mouhamadou Lamine njaboot yëpp nakk ci ginnaawam di ko xoolee Serigne Bara kenn ku nekk di ko xoolee Serigne wayjur sa wayjur mu Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Mati lay taxawaayam rafet na lii ñu fiy def lépp ci. ndigalam lañ koy defee ndax moo yilif kër gi ak kilifaam Baye Ahmadul Maxtaar lépp nag nekk ci suufu kilifteefu Sëriñ Muntaqa waaye hiérarchie bi noonu la kër gii Sëriñ euh, taxawaay bi mu sëñ Maam Baara koy rafetlu njaboot bi yépp ñu ngi koy rafetlu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa barakaatu. bokki jullit yi fi teew maa ngi leen di nuyu bu baax di tàmbalee nuyu bi ci sama kilifa yi fi nekk maa ngi nuyu sëñ Moustapha moom sëñ Baara maa ngi koy ziar bu baax a baax mu mel ne wax ji ci ndigalam lañu koy defe di nuyu sëñ Maam Baara di ko siyaar bu baax di ko jaajëfal di ko ndokkeel bu baax a baax ci bis bi loolu ci wàllu jàng ak jàngale yëg na ko bu baax a baax ko itam bu baax bu doon loo xam ne tey mënoon na fee teewal boppam tey fu bu bari saxel dana nekk ñëw Sénégal ko fi loolu moo doon naalu Sëñ Tuubaa kon loolu moo waral sëñ Muntaxa tey yàlla xéer ko ci mu fas yéene teg tànkam foofu ba ñu ñaan yàlla mu àggaleel ko ci jàmm kon nag yow itam ñu lay ndokkeel ci ñëw bi nga ñëw di immigré lu mel nii gannaaw boo xamante ne président joxe na ci ndigal maye ko bañ def ko loolu itam ñu la ciy sant li nga xam ne noonu la ñu jiitu woon ci ay kàddu sant woon noonu la ci gën a sant bu baax a baax a baax a baax di delluwaat ci daara rek ndax daara ji itam dafa am solo ndax bu mu fi gisee gone yoo xam ne jàng nañu alxuraan wattu ko ñu leen jàngal xam-xam dafay baax ñu ñaax leen sant leen ñaanal leen waaye itam du tee ñu ñaanal waajur yi gannaaw bu ñu ñaanale ci seen njaboot googu ba noppi itam dana am lu leen ñaan ndax alxuraan li muy jafe-jafe def ci nit maanaam téye ko boobu gën a jafe te gone gi bu fekkente ne dafa jàng alquran ba wattu ko ci at yoo xam ne ay atam bëriwul nga bàyyi ko itam ronkee ko ci daara ji itam yóbbu def loo ko leneen te saytu woo ko na nga ko war a saytu itam lam nu nam amoon alquran alquran ja li ci ëpp doole day rëcc te loolu itam euh, parents d'élèves yi maanaam kilifa yi nga xam ne ñoo leen doon jàng loo ñoo leen gën a mën a dimbali ca loola mën leen a téel seen alquran mën leen caa jàppale ñu mën a jàng xam-xam bu ñu ko mën a jëriñoo ëllëg ba nga xam na lañ doon def ci daara ji ka doon jàng ak ka doon jàng ne lépp seen coono dara du ca naax saay bu fekkente ne bàyyi nañ gone yi noonu bañ leen a saytu war a saytoo loolu mën naa dem ba coono yooyu mën naa dem ba naax saay kon nag euh, ñu ñaanale gone yi di ñaanal lay jur yi itam noonu lañ leen wëlbatiku leen ñaanal ñu gën a taxawaati ko ne rawaat na ginnaaw bu ñu jógee ci daara ji buñ leen fi mënee bàyyi ba ñu noppi ba jeexit loolu baax na bu fekkente loolu mënta am tam fu ñu mën a jëm nañ leen jéem a taxawal jéem a saytu loolee nga xam ne moom lañ doon jàng bi ba defee mu amal leen njëriñ monsieur le ministre damay dellu si waat tuuti rek ci li ko sëñ bi ak ñu ko bëggee mu ngi lay xamal ne la sëñ maam Cheikh sëñ maam maam Baara taxawaayam bi dafa am solo lool. mu di la ko dénk nag nénk nénkaanal boppam ngir taxawaay bépp boo xam ne aaja na ci ci biir njàngum alquran mi ak ci biir njàngum xam-xam mi ak ci biir njàngum arab mi ak ci biir njàngum français mi lépp li nga xam ne bëgg na ko boole ci daara ji itam ñu ngi lay sàkku ci yow ñu dolli ko ci ay taxawaay te gën koo ca dëgëral jàppale ko ci ba lim ci bëgg lépp yàlla man koo saafara ba lépp dox jëm ci kanam bu ko defee loolu lépp nag ni ko waxee léegi dañuy may bu daal jooju juma jooju noppee itam ñëpp ñi nga xam ne mel nañ ni nañ leen formation yi mel ak fu ñu mën a nekk ci réew mi wala sax ci bitim réew buñ dikkee itam fañu ñu wen ca war a dugg daañ mën a dugg ca niveau yooyee di rafetlu itam kàddu yi sëñ Modou Baara moom itam lépp leer na dara lu ci matoon a dolli sax amut ay na lii moom ki ñu yónni rek moom moom kàddu yi waaye li ñu fi jëkk a wax yépp doy na leer na ñëpp dégg nañ ko te rafal nañ ko ñu ngi siyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp di baatu ñëpp ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit fi teew yépp leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu indil leen nuyu ak ziyaare président Macky Sall leen nuyu ak ziyaare gouvernement bi yépp te premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne di ko jiite jël nuyoo boobu ak ziyaara bi teg ko ci loxo yi kilifa yi nga xam ne tey jii ñoom ñépp ñoo fi toogal Serigne Touba toogal fii Serigne Mountakha Mbacké nga xam ne moom la yàlla def mu nekk xalif bi tey jii nii ci li nga xam ne moom lañ ma président Macky Sall dénk ci réew mi saa yu ma toogee ci bërëb yu mel nii damay sant yàlla li mu def ma nekk ministre bi yore affaire njàng mi gërëm ci président Macky Sall bi ma óolu def ma ko ndaxte ci loolu ñu ma dénk moo ma may may toog ci bés yu ni mel nii nga xam ne yépp xéewal la ci rawatina nag li nga xamee ne baat bi njëkk wàcc ci alxuraan muy iqra ci yi bay yëngatu loolu la kon boog maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di la gërëm ci lii nga xam ne wax nga ma ma ñëw ko fii nii tey ji te xam ne ci délégation bi ànd ak président waroon ma dem ci Ziguinchor Sédhiou Kolda laa bokk bi ma ko ko waxee mu ma am na ngànt demal ma toogal ma ci bés boobu kon boog ak mbégte ak sant yàlla laa ñëwee toog ci bés bii tey jii nga xam ne dañ ci doon daloo daara bu soxna bu dippee soxna astu wàllu Mbàkke te gën cee sant yàlla bi nga xamee ne daje bii biñ koy def ak daloo bii ñu koy def ci weeru safaar muy weer boo xam ne bii ci yoonu murit ak ci yoonu diine lislaam daf cee am solo bu mag a mag a mag kon tey su fekkee ne bés bii ñuy daloo daara ji tombe ak bés bi nga xam ne moom nga jagleel yow maam Baara xale yi wattu alxuraan ci say daara ñëw di ko tari dafa tombe waaye lu ñu liggéeyoon démb la daara bii nga xam ne moom lañ doon daloo tey de bokkoon ci yi nga président Macky Sall bi ñuy conseil des ministres délocalisé fii ci région de Diourbel waxoon na ko sëriñ bi sëriñ Sidi Mokhtar de, muy daara ne danaa ko ci tabax yàlla def benn bi li tax entreprise bi ñu ko joxoon moo wàccowul ak liggéey bi ba ñu nangu ko ci moom war a defaat beneen appel d'offre kon boog dige boobu mu defee woon président Macky Sall wàccoo na ak moom moom moo tax tey ñuy daloo daara bii nii waaye indi nañu daara fu ñu war a indi daara ndaxte wax naa sànq li nga xam ne moom lañ fi liggéey ci tàggat xale yi ci xam-xam yar xale yi bu tombe ak xalifa sëriñ Muntaxa Mbàkke nga xam ne liggéeyam yépp mi ngi ko jëmale ci jàngale sàkku xam-xam da ngeen wax fi projet bu mag bu université bu 37 milliards de francs CFA bu bëgg taxaw fii liggéey boobu mu koy continuer tey sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sosoon ko fi xalifa bi ci topp yépp doon ko doxal ba mu yegg ci loxo di rafetlu tamit farlu bi nga xam ne moom la Mame Bara farlu ci liggéey bi lu dul benn lu dul ñaar fu ma tasee ak moom walla saa yu ñëwee sama bureau indiwu fa soxla boppam soxla liggéeyu daara yi la ci doon indi dañu ci sonn soññ pour liggéey bi gaaw ñu koy gërëm ci loolu te xaaruñu nguur gi indi daara pour mu defar daara ndax lii nga xam ne moom lañ fi wax muy daarul xidmatu xaddim yi mu xidmatul xadim yi mu def koo ko gis xam ne nguur gi dafa ñëw yu dolli ci liggéey bi waaye xaaruñ ci dar dina seede tamit taxawaayu Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom tamit saa yu ma gisee wala mu wax ak man wala su ñëwee sama bureau mbirum daara yi la ma doon soj kon boog tey su fekkee ne ñu ngi koy daloo xaj na gouvernement bi am na ci def na ci ay jéego waaye ñoom tamit ci seen farlu ak di ñu soññ moo tax ñu toll fii ñu toll. li ngeen wax dana ñu gën a soññ pour ñu continuer li ñuy def ci liggéey bi président Macky Sall soo ko seetee fii su ma jëlee région de Diourbel rek bi mu toogee ba su may wax ak yéen léegi. milliard ak lu ëpp fukki million moom la def ci njàng mi ci mbirum daara loolu tabax na walla defaraat na fanweer ak ñeenti daara yoo xam ne yi juróom yi ci budget état lañ ko defee ñeenti daara yi ci la bokk

loolu nag dafay continuer ñu koy def kon boog ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi fi nekk yore xale yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant seen taxawaay ñu ngi leen di indil gërmaani président Macky Sall gërmaani gouvernement bi di wax rek ngeen ñaanal réew mi ngeen ñaanal président ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénk yàlla may ko ci ndam mu nekk jariñu Sénégal ñu leen di gërëm di leen sant jërëjëf